petit famille yi comprendre ko parce que ñun bu ñu dégloo avocat général Ousmane Diagne moom conclusion am moo doon ah juge bi confirmer cour bi confirmer la décision de Sabassy Faye te joxe na ay argument yu leer nañ mais tey juge euh, cour bi lu mu wax maanaam dese naa leer suñu bopp donc dafa mel ni tey ñoo ngi ñuy dugalaat ci benn dilatoire boo xam ne ñoo ngi ñu renvoyé au tribunal de Dakar. C'était prévu. Non, c'est malheureux. li fi xew tey ku moywul dina jural Sénégal ëllëg ay jéy. des rampes dangereuses. di am mbetteel je pense que sénégalais yëpp mbetteel boobu parce que tey bu fi ñëw ñëpp nga euh, leader de mutuelle askan wi doon ay alliés Ousmane ci coalition boobu jàppoon nañu question bi daan ko vidé. pour permettre au président Ousmane de nous donner un de parrainage. On est le novembre. Et damay rappeler que à partir du 11 décembre la ñu déposer fiche parrainage candidature bi ba le 26 décembre.